mu dagg ko ndaxte ngóob jot na yeesu ne leenati lu nu mën a méngaleel nguuru yàlla walla ban léeb lanu ko mën a misaale dafa mel ni doomu fuddën bi gën a tuuti ci jiwu yépp waaye boo ko jiwee day jóg màgg bésu su gàncaxi tookar yépp mu sax ay banqaas yu rëy ba asamaan tàgg ci keram noonu Yeesu dégtal leen yeneeni léeb yu bari yu mel ni yii di leen xamal kàddu gi aju ci lu ñu àttan daawuleen wax dara lu lu ciy léeb waaye bu wéetee ak ay taalibe daan na leen firil lépp bés booboo nag ci ngoon Yeesu ne taalibe yi nanu jàll dex gi mu yiwu mbooloo mi nag ay taalibeem jël ko ni mu mel ci gaal gi te yeneeni gaal ànd ak moom naka noona ngelaw lu mag daldi jóg duus yi sang gaal gi ba mu bëgg a fees fekk yeesu tëdd di nelaw ci ngegenaay ci taatu gaal gi taalibe yi daldi ko yee naan kilifa gi ndax sunu bakkan soxalu la ci kaw loolu yeesu jóg daldi gëdd ngelaw li ne dex gi noppil te dal noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm yéesu ne taalibe ya lu tax ngeen tiit ndax gëmaguleen ñu daldi ragal lool naan ci seen biir kii moo di kan ba ngelaw li ak dex gi sax di ko déggal